ñu bëri dañuy defe ne. ñu bëri dañuy defe ne. moo ma jur. moo jur bu saf mi. wala mu jur ibu bi. wala mu jur ibu mi. wante sunu waajur bu góor. wante ñoom seen waajur bu góor. di rakk ci bu saf bàccil bu mag. di rakk bu saf bàccil bu mag. ñu tuddee ma ko. moom yi ñu tuddee ko ko. bu mu génnee àdduna en soixante quinze. bu mu génnee àdduna en mille neuf cent soixante quinze. ñu ñëw si loxom. ñu ñëw ñëw si loxo seen baay bu saf bàccil. ba tey jii. ba tey jii. kii jóge fi tey. ki nga xam ne moo fi doon demee suñu yaay muy yaay Mère Gane Siri amuñu si benn naqar. mu ne ñoom bi ñu dugal seen loxo ba Mère Siri ba léegi ba ni mu génne àdduna mosuñu am lu ko naqar si moom. yar ñu bu rafet. yar leen yar bu rafet. mais nag. mu ne mais nag. amoon na moom bu sef mii. yóbbante yu ma doon ndax am na ay yóbbante jamono bi muy dund am na ay yóbbante bi mu daan yóbbante moom mii ba bés barkaat démb bu a ba barkaat démb avant muy gën a àdduna barkaat démb gërëm na ay doomam ay doomam gërëm na buri mu ne gërëm na buri bàcc li ak rakam yi ak rakam yi topp si moom ñëpp ñëw sumbulu bàcc li na jibi mu ne na jibi si Mouhamed seen mag ñaanal na gërëm sama trondoo bu sef ciment. mu ne ñaanal la trondoom trondoom bu sef ciment. wax lu bëri si moom. wax lu bari si moom. tey nag dañu yëpp. mu ne tey mënu ñu wax yëpp. gërëm tamit. mu ne gërëm tamit. ñii ñii wax ay gorom lañu. ñii nga xam ne ay gorom lañu. te moom waxu leen goro. te ñoom waxu leen goro. nee na ay doomam lañu. nee na ni gorom yëpp ay doomam lañu. muy taawam. muy taawam. Omar. Omar Sakho Omar Sakho. Ablaye Diop Ablaye Diop. ak Sele mais ñaamee nekk euh, Espagne. ak Sele ñaamee nekk Espagne. ndax lépp lu war si moom. ndax lépp lu war si moom. bu ñu duggee si kër gi ba léegi. bu ñu duggee si kër gi ba léegi. def nañu ba def lu ëpp sax. def nañu ba def lu ëpp seen njort. du toog. moom du toog. Euh, tabaski jot. tabaski jot. te ñaari fukk yi wala ba si ñett dugg si kër gi. mooy ñaari kuy ba ñetti kuy fa tubaarakalaaw dugg si kër gi. ba tey day yar ay kuy tey yi. ba pare moom day yara boppam ay xare boppam. bu mu demee ba doole ji néew. bu ma demee ba dooleem néew. ñu jël ko ñoom ñooñu doo yooyu. ñoom doomam yooyu. yóbbu ko hôpital. yóbbu ko hôpital. buñ ko yóbbu hôpital. buñ ko yóbbu hôpital. cabine lañ ko jëlal. cabine lañ ko jëlal. cabine cabine. hôpital bëri na. ay appartement mais foofu cabine foofu boo xam ne moom rek mu ne hôpital benn ay appartement mais moom ñoom ñoom doom yi dañ ko jëlee cabine gërëm boobu mu leen gërëm gërëm boobu mu leen moom ñoom tamit famille bi ñun la ko defal ñoom famille ñoo la gërëm ñoom tamit ñoo lay gërëm Omar ñu ngi lay gërëm Omar ñu lay gërëm Ablaye Diop ñu ngi lay gërëm Ablaye Diop ñu lay gërëm seet ma leen nekk euh, mbokkam yaa ngi si euh, Espagne ñu ngi koy gërëm si am sale ma nekk Espagne ñu ngi koy gërëm li ngeen defal suñu yaay li ngeen defal suñu yaay yal na leen ko ah. seen doom fay yal na leen ko seen doom fay yàlla ngeen toog ba fekkee ah. yàlla ngeen toog ba fekk seen doom yi ah. yàlla nga def leen fekk fi ñu muuree seen doom yi ba ëllëg ba ëllëg macha allah jërëjëf Aliou. waaw joxe ñaan joxe ñaan léegi incha allah alxames su neexee yàlla mooy sarax si. imaam ñu ngi jégalu. waaw. asalaamaaleykum mbokki taalibe bi. imaam ñu ngi lay ziar dëgg la jox sa wàccuwaay. xam naa bu ma waxee fii ñu ràññee xàmmee ma te xam dëkkandoo laa ci tamit. Eh. war naa fay yëkkati kàddu. li ko waral mooy mhm. yonent bi daana dénkaane dëkkandoo ay foog ni dëkkandoo luy doon mhm. jógulu woon di dénkaane ci dëkkandoo rafetal boo xam ne war ngaa jëme ci moom rafetal mhm. te soxna si yàlla dogal na ni jaxasoowuñu woon ndax dañ ko fi daan romb fii romb fi xale yi ñu teg war ga waaye buñ masaana romb danañ ko ñaanal ngir ni mu njaboot man fii mooy sama mbedd fu may daal mhm. damay seere mhm. di wax ci turu quartier bi mhm. ndax sunu chef de quartier bi nga xam ne moo fi nekkoon buñ fi bàyyi ko ba léegi yitte jun am di ko wax ci Demba Diallo mii la ñuy ñëw wax naan Demba Demba Konaté Demba Konaté mu dox ci ay jéego yu am solo kon danaa wax ci turu Demba su ma noppee nag dinaa wax ci turu ñaari sama ñaari bokki taalibe yi nga xam ne danoo bokk sëñ Tuubaa mhm. ki ci jiitu muy Balla Gaye mhm. di koo xam ne mhm. danoo bokk sëriñ nu dajee kër sëriñ Basiiru Baara nuy woykatu sëriñ Baara mu jàpp nu ngir jëmmi sëñ Tuubaa xasida mu ñëw ci kër gi jël fi soxna ñu jàppee ko fi doom jàppee ko fi njaboot Balla. Mhm. daanaka boo koy seet ci këram yi bu fekkee ni fekkoo ko fa. Mhm. mën ngaa làq ñëw ci kër gi di nga ko fekk. Mhm. mu wax ni. dafa am ay magam. ak wëllëreem yoo xam ne teew nañ bi ñu yëgee xew-xew. ki ci jiitu. muy Abdoul Aziz. Abdoul Aziz di magi Balla di xaritam di wëllëreem. way juróom nga dénkoon ko Balla. Balla wax ni. saay bu amee naqar bu geesoo dina gis magam bi Abdoul Aziz mhm. lii mu def léegi firndeel mhm. ndax jéego bi yaatoogul bi ñu dencee soxla si ba ñëw la daje ñun ñëw ci mbooloo mhm. kon la ko woy juróom wa dénke woon Balla Gaye bàyyiwul ko benn yoon lu mu xewle saay bu geesoo dina gis Abdoul Aziz bàyyi nag xaritam la day wëllëreem ñoom ñaar ay morom keneen ki ñuy waxaat ci moom mooy Cheikh naa Diop xaar moom te dëkk Daaru Salaam. Mhm. man cassette bi ma njëkk a génne. Mhm. moom mii moo ko financé. que jox ma ci alal ju bari. ñu mhm. ma woyal maam Cheikh Anta borom bu yàggul ci biir koor gi la ma woo këram. yëkkati ay teraanga ni ma taggal yonent bi. su fekkee ni dëkk naa ci koñ bi ñoom ñu fekk ma. ñu jóg di ñaan di yëgle alxames di yëkkatiwuma sama kàddu. day mel ni liñ def. damay suul jëf mhm. te may wax kot mbooloo mhm. di tagg kot Seydina Muhammad maa ngi leen di seereel ni mhm. soxna si fi bàyyi ko soxna su baax la soxna su yiir njabootam ñu gën cee meen sumbulu mii sumbulu cant gi mu njëkk fi organiser fii ci tali yi gunaas mhm. ñun ñii ñoo ko taxawee ak Serigne Khadim mhm. moom it muy koo xam ne ku bëgg Serigne Touba la ak mhm. soxna buri bàcc bi magam noo leen di jàng te di leen jéggulu doon doon yëkkati kàddu ci turu koñ bi yitte yi bari na kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw kenn ku ci ne mënoon nanoo jaar saw tur waaye soo limee dina am ñoo xam ne di nga desal ci noonu tamit la ñuy waxe ci àndaw mii nga xam ne day wëllëre ci bàll saa yi boo gëstoo. Mm-hmm. lu Balla Gaye xewle saa yi boo gëstoo. Mm-hmm. gis andaw bu nekk ci wetam. Mm-hmm. di xaritam. di confiance am di koo xam ne nii ñoom ñaar danañ dox loo xam ne nii. ma sàmb du yëpp ma demb du yëpp. Abdoul Aziz. bu yàggul dara la la lu mel nii dal. waaw mooy yow bu baax alaaji alaaji Ndiaye. keroog. ñaan nga bokk nañ ci ña fa jiitu. waaye sa wayjur wa. keroog ban taxawee ca jàkka ja ñam doon jox dépasse ñoo ñëw. di seere. mag ñi nga xam ni góor bi ale Ndiaye moo leen doon jox dépense. Mhm. ñoo ñëw ni ñoom ñàkk nañ. wallaahi wallaahi wallaahi. waaye bi nga jëlee kàddu. Mhm. la ma ci gën a neex mooy da nga ni. Mhm. képp ku góor gi doon tax ku góor gi doon taxaw. na nga ñëw ci man danaa la taxaw na la góor gi doon taxaw. est-ce julit engagement wallaahi. ab jullit nga. yaaram nga taalibe Serigne Babacar. ñu tuddee la al amin. ñoo ngi lay siyaar di sa wàccuwaay mm-hmm. kenn ku ci mënoon na moo jaar ci saw mm-hmm. noonu lañ ko mën a wax mm-hmm. di siyaare suñu bopp ba di la ñaanal ci doole Moussa alayhi salaatu wa salaam suñu borom defal na taw ànd bii ngay ànd ak Baye ak Abdoul Aziz lañ ko mën a waxee tamit ci baabooy mi moom it lu bal la ngay xew li tax ñuy tudd ay tur nag du du tur yi am waaye tàgg boo gis am na jàppale. Mhm. koñ bi kenn ku ci nekk mën naa jaar ci sawtu mhm. waaye dafa am ñoo xam ne ñi mhm. dañoo jigg fu sori ñëw ngir Balla moo tax ñu tudd seen i tur waaye du danoo jiital kenn wàccale baabooy ñu noonu lañ ko mën a waxee ci ba ba Balla Gaye lépp lu Balla Gaye xewle saa yi boo geesoo ki ngay njëkk a gis mooy baabooy mu takkox rek raxam mosu koo yàqal dara noo ngi ñaan seen ànd bii ngeen di ànd te Moustapha alayhi salaatu wasalaam tax yàlla bu ci seytaane am noonu la ñuy siyaare sunu baay bi nga xam ne nag mooy baay sumaare ñu jàkkaarloo ay kër mm. sama kër gee mm. lu fa xew mm-hmm. baay sumaare moo fay jiitu la fay dog la fay dogal mm-hmm. la am muy dogal mm-hmm. baay sumaare mii moo ko fay dogal tey lu ma jàpp lu ma nekk bu ma ko waxee day jóg soldat la dox ci wax ci ba loola seet kon Baye Soumaré ñu ngi lay jox sa wàcc waay di la siyaare di siyaare waa jàkk ji imam ñu ngi lay ziare di ñaan ci doole Moussa alayhi salaatu wasalaam ni la mus sunu borom jiitale ci kanamu jumaa ji yàlla nga ko yeggaleel noonu ci doole Moussa alayhi salaam noo ngi leen di jégalu ngox ñu ngi lay ziare bu baax a baax baax dañu woon dañu leen yëkkati kat ci turu Balla Gaye ak bokk yu baax yi kàddu yi rafet na macha allah yàlla yàlla fay la jotal nga matal na wa tabarakallahu comme ni nga ko waxee sànq si jumaa ji rek sumaare mi jaamu ñu soxla si la woon lépp soxla si li mu def gërëm moom mi lay woolu moo xam tudd la moo xam cër la moo xam takk la moo xam ngénte la moo xam wàcc kaamil la kon loolu fa tabaarakalaa ñu ko jaay sumaare sànq bi ñu tëree soxna si bu saf mii def dina wax ana kama mun a ana sumaare kon diggante xam ne diggante soxna si ak sumaare xam na ko loolu su ko xam woon du ko wax kaay wax te sumaare tamit lu seete si soxna si dañ ñëpp seete ku baaxoon la jullit la woon ku daan jaamu yàlla woon ku daan joxe ñaxam la woon daan uuf njabootam uuf njaboot kenn bëgg ay mbokkam nee naa leen ñi mu fekk si kër gi du ay wujjam de ay magam lañu ñi mu fekk si kër gi du ay wujjam ay magam lañu